salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Moussa Mbaye la ci kàddu gi fii ci dëkk bu sell bi di Touba di wax asalaamaaleykum mboolem koo xam ne rek yaa ngi ci biir Sénégal yaa ngi ci diaspora bi di yëkkati sunu nuyoo di ko teg ci Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké di ñaan sama borom guddalaw fanam lool te may ko wér bu loolu yëpp jàllee nag yàlla dogal ñu bari ñu ngi doon xaar lii tey ci man. muy yëkkati kàddu wax sunu jàppale ci élection législative yi nga jëm muy élection yu am solo di tànneef gu am solo muy tànneefu gox ndax ki ngay tànn mu dëkk ci sa dëkkuwaay boo amee jafe-jafe inondation mooy ki koy xam boo amee jafe courant mooy ki xam boo amee jafe-jafe santé mooy ki koy xam bu ëllëgee bu demee assemblée mun ko jooy yàlla dogal ñu nekk responsable nekk ci dëkk bi fii Touba ñu ëpp ci askan wi xam nañ koy Moussa Mbaye ñuy woo responsable militant association maire mbootaay GIE képp koo xamante ne nii rek yaa ngi yewoo ci dëkk bu sell bi ak foo mën a nekk ci Sénégal ak ci diaspora bi ñu ngi lay woo ci président Ablaye Sylla li tax ñu leen ci woo nag mooy doomu Touba di njariñal dëkk bi ni ma koy waxee ni lii nga xam ne politique politiciens yi ñu ngi koy def wax dëgg yàlla le président Ablaye Sylla kenn mësu ko ci gis depuis bi ko yàlla dimbalee mu jàng fi mu war a jàngee am teraanga ji mu war a am daf ko jubanti jooyanti ko jëmale ko ci askanu Sénégal jëmale ko ci néew di doole yi jëmale ko ci dimbali population bu Sénégal kooku nag bu élection législative jotee chaque jour ni ma koy waxee rek ni ay ndombay tànk rek yóbbu ko assemblée national parce que gëm nañ ni bu fa demee assemblée nationale moo fay jafe alalam waaye góoma ne dana fa gañ dara te loolu mooy li ñu gëm. ndax depuis bu nga xam ne mu ngi taxaw di liggéeyal Touba ñun ñëpp teg nañ ci suñu bët mu defal Touba loo xam ne lu am solo la moo wax ne Touba tey mun nañ ne dañu amel bor le président Ablaye Sylla ñu war ko fay fay gën ko war a fay nag ñun ñëpp xam nañu ne dafa liggéey ci dëkk bi liggéey bu am solo li may njëkk rek mooy bi Serigne Sidi Muxtaar Mbàkke nekkee xalif général de Mouride am yokkub jumaa ji def juróom-ñaari sorool di ñaanal suñ Sidi Moutar sama borom yokki leeram te taas ci barkeem dañu wax ne Ablaye Sylla moo yëkkati 2 milliards jox Serigne Sidi Moutar mooy yokk juróom-ñaari sorol yi ngeen gis màggal Touba depuis ngeen xàmmee ba léegi Ecotra taxaw gis ngeen camion yi nga xam ne ñu ngi dugg ci dëkk bi gis ngeen camion suuf yi gis ngeen camion yi def ndox yi gis ngeen camion yi nga xam ne ay tracteur lañ di jubbante yoon yi ba gani Serigne Touba yi bu ñu ci màggal gi kenn ku ne mu nga bëgg dem fi nga dem génnaat ci jàmm kon loolu président Ablaye Sylla moo jëf-jëf kon nag bu loolu amee ñu gis koo xam ne doomu tubaa la te Touba ameel ko bor war ko fay loolu rek dama ne doyoon na ci murid yëpp jàppale ko loolu doyoon na Sénégal gépp jàppale ko may waxaat ni képp koo xam ne soppeeb Cheikh Mouhamadul Fadal nga ngay taalibeeb Sëñ Fàllu ak foo mën a nekk ci àdduna na nga xam ne président Ablaye Sylla mi mooy kii nga xam ne moo taaral barabub Sëñ Fàllu bi ba àdduna bépp taxaw di ko di ci mën ba mën ko gis barabu Cheikh Sidel Mokhtar Mbacke bii di wax mbooleem koo xam ne yaa ngi bokk ci njabootuk Sëñ Baara gis ngeen li nga xam ne jëf juré ji mu defal Serigne Sidiyel Muxtaar Mbàkke muy barab boobu nga xam ne fa lañ def Serigne Sidiyel Muxtaar moom mooy ki ko soppi mooy ki ko defaraat mooy ki ko taaral gis de bu ngeen demee ndakaaru gis ngeen ne docteur Ablaye président Ablaye Sylla tabax na fa hôpital bu mag a mag a mag boo xam ne mu ngi dimbali population bu Dakar social yi muy def ci Sénégal li nga xam ne moom la liggéey yurut yi fi état entreprise la yor bu ñuy wax Ecotra di ci def alalam di ci liggéey di ci dimbali naw ñi di ci dimbali sénégalais yi kooku nag ku nu war a jàppale la parce que da nga gis koo xam ne danañ ko fal poste député bi muy bëgg mooy salaire am otoom ak lu mu dunde waaye ki nga xam ne yàlla defal na ko teraanga jooju Sénégal rek mooy ki ko tax a jóg kon maa ngi ñaan sénégalais yi nañu bàyyi xel le président ab Ablaye Sylla ci jàppaleem ci yaakaar gi nga xam ne yaakaar na ko doomi Touba yaakaar gi nga xam ne yaakaar na ko njabootu Serigne Touba gi may wax ne ñëpp dañ ko war a jàppale te buñ ko jàppalee suñu bopp la ñu jàppale. ndax ki nga xam ne xaarul ba pouvoir ñëw ci moom muy doog a daw di uti Touba kooku du ñu ne Ablaye Sylla loolu la def déedéet ndax démb ak dundam ak léppam dafa juddu ci taalibe kuñ ne Baye Sylla mi nga xam ne mooy docteur te jaaroon ci daara Serigne Saliou yoroon donga yi mooy waajuram kooku wàcc na ndax baayam Serigne Saliou gërëm na ko ndax liggéeyal na Serigne Saliou kooku nag bu jë bu loolu amee man day maa ngi woo képp koo xam ne yaa ngi ci tubaa ak foo mën a nekk ci Sénégal man Moussa Mbaye bu Antoine Félix Ablaye Diome maa ngi lay woo ngeen génn ngeen jàppale président Ablaye la jàppale ko mooy jàppale Touba jàppale ko mooy jàppale sunu bopp ndax buñ ko falee wallaahi Touba danañ gis seen bopp ci assemblée national ndax lépp lu Touba manqué dana ko jooy bu ko jooyut dana yëkkati alalam def ko comme ni mu koy defee kon ñu ngi wax ñépp bulletin baa ngi nii na ko Sénégal yépp bàyyi xel diaspora bi ak fu nit mun a nekk ci Sénégal ñu ngi wax ne président Ablaye la mu ngi nii bulletin baa ngi nii bulletin bu weex tàll la def jant boo xam ne dafay leeral kon taalibe la boo xam ne bi mu xàmmee ci nda loxob ndeyjooram ak càmmoñam ba léegi ci leeral la dëkk kon ñu ngi ciy woo ñëpp di wax ne ngeen jàppale ko te xam ne seen doom la seen rakk la seen taalibe la seen lépp la bulletin bii nag ñu ngi ñaan képp koo xamante ne nii soppeeku si amatul faadal nga. ndax nii mu def barabu sëñ fàllu bii yeesal ko ba mu méngoog jamono loolu dong waroon naa tax képp kuy soppeeb sëñ fàllu boo duggee ci urne yi na nga jël président Ablaye Sylla mi dugal ko ci urne yi voteel ko ndax mu am li mu bëgg ndax Sénégal moo ko ñor Afrique moo ko ñor kon ñu ngi sant ñëpp tey garam ñëpp te mbooleem koo xam ne yaa ngi ci dëkk bi di jàppale le président Ablaye Sylla ñu ngi lay sant di la gërëm ci jàppale gi jàppale gii ñu koy jàppale nag suñu responsabilité lañ lañ ko defee du benn personne du kenn koo xamante ni taxaw nga ni ñu dem leen jàppale la président Ablaye la ñun ñoo ko def gis ne njariñul dëkk bi la gis ne mu ngi taxaw dëkk bi gis ne mu ngi taxaw Sénégal ku ma xam-xam ne ci Antoine Félix Diome nga ma xam waaye dañu gis taxaw gi muy taxaw sénégalais yi liggéeyal gi muy liggéeyal sénégalais yi xaaruñ ci kenn ñoo jóg fii ñu toog ak fu ñu mën a nekk suñu propre moyen lañ ko defee benn personne bu yëkkati benn mille francs jox ko Moussa Mbaye amut lépp ñun ñoo ko def ci suñu propre moyen jóg di ko campagnal te xam ne njariñul dëkk bi la te xam ne liggéeyal na Sëñ Tuubaa kon ñu ngi sant ñëpp tey gërëm ñëpp di wax daal ni sénégalais yi bulletin bu baax baa ngi nii na ko ñëpp dugal ci urne yi te fas yéene ko jàppale jërë ngeen jëf